السلام علeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokk yi ñuy seetaan ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara xam ngeen ni weeru juin Serigne Mame Mor Mbacke moom Cheikh Mahamadul Mourtada tukki yi nga xamante ni daana ko amal ci réewum Italie te di ko door ci juróom-ñetti fan ci weeru juin di bis bi nga xamante ni commune bu Pontevico ci Italie moo ko def bisub Serigne Touba mu am proclamation te Cheikh Mamadou Mourtada dooroon ko ci atum 1999 ren jii nag sunu borom wàcce tawat joo xamante ni bii dafa wër àdduna bi yépp ba tax Serigne Mamor Mbacke moom Cheikh Mamadou Mourtada yëkkati ay kàddu jëmale ko ci tukki yooyu nga xamante ni daana ko amal ci Italie Espagne France ba États-Unis ak Allemagne yëpp kon dañuy and teewlu kàddu yi nga xamante ni moom la sëriñ bi yëkkati ngir jox ndigal e, ñooñu nga xamante ni seeni dëkk amoon nañ proclamation lu mel ni 8 juin ca Pontevico 12 juin ca Rimini ak 22 juin ca Touba Cagliari ca Sardaigne, kon ñu teewlu sëriñ Mamor kàddu yi la yëkkati. xam ngeen ne weer yi ñu jëm. muy mois de juin ak juillet yëpp ñu ngi ko doon dem ci ay tournée amé fële euh, Europe rawatina Italie ak ak dëkk yooyu ak Amérique. dafa am ay journée yoo xam ne ay proclamation yoo xam ne état bi ñoo ko joxoon sëñ Mourtada muy tur muy bési lislaam lañ ko tuddee. le 8 juin mi ngi nekk euh, Brescia ñëpp a fay daje këri diine yëpp a koy bokk bu dee le 12 mi ngi Rimini bu dee le 22 mi nga Cagliari yi non lañ ko top yoy yep ay bis officiel la yo xamne état bi moko don ko joxe na ren ngeen ko gissel jafe-jafe ak nim démé la waye bu mu para bu nek ña fa nekkon ak bis yi bu ngeen programme yi ñu tëraloon ci bis yoy yep dé su ko mëna def ndax ndaje xeen mënu ñu ko def waye nañu fexé ba dundal ko ci ñaan dundal ko ci diiné kenn ku ne sa kër nga tok fa autorité yi tamit bu fekkee kenn nit wala moy dem ci ñom won leen ne leen bis bi kat fi lañ ko daan def ak li la ndax noko daan bokk ak ñom fépp fu ñu mës a nekk ñoom ñëpp dañuy mobiliser wu ñëw fekkee ko ànd ak ñun yombal ñu yëpp kooku tamit noonu naka noonu États-Unis tamit Amérique tamit euh, bu ko defee nag kenn ku nekk bu bis yi jotee nañu ko màggal màggal goo xam ne kenn ku ne sa kër la. mais am na sax ñu nekk fii ñoo xam ne ba tey bu fekkente ne dañoo ñëwoon fii mënatuñoo dem. wala biñ ñëwee fii liggéey bañ daan liggéey mën a defatuñ ko tey nekkoon ci yéen ànd ak yéen liggéey bi ñooñu ñëpp sax lu ngeen leen mën a dimbale rek daan wàññiwul wàññiwul wàññiwul dara la ca deset mooy ñi ngi ñi ngi leen di ñi ngi sant gouvernement bi tamit président ndax yëg nañ ne ndax ndax li nga xam ne mooy euh, ñi nga xam ne mooy ñu gaañu woon di xamal nit ñi tamit ne leen lu mu ci mën di doon rek nañ ko def ci teey nañ déggal tamit docteur yi waa lépp lu ci ñëw baag indi baag ak fii tamit ak lépp lu luñ ciy def rek nañu fexe ba sàmm mu mu nekk am sécurité ci ñoom sàmm wér ga sàmm sàmm ñëw gi ko defee ñooñu gaañu yëpp it yàlla na leen yàlla yërëm te jéggal leen te ñu xam ne noonu moom ay ay ñooñu dëgg-dëgg ay ay ay ay mënees naa wax ne ay ay ñu ñuy jihaat la ndax jóge sam réew dem di wuti loo xam ne teraanga rek la ak sa sa dund nga dem ba loola fekk la fa ah, ku ne xam na ne kooku ay caaxaan génn na ci moom kon yàlla na leen yàlla boole yàlla yéegal ci ña nga xam ne ñoo doon jihaat rek te loolu tam def ci bokk ndax alxuraan tudd na lu dem noonu kon leen di jaale seen mbokk di ñaan yàlla mu gën leen a jàppandel ba ñu ci mën a ñëw ñëpp ñëw te yàlla yërëm leen te ña fa desit yàlla sàmm leen yàlla sàmm leen ba kenn benn bakkan bañ faa des réew ma tamit yàlla def fa jàmm bu baax ndaxte jafe yëf yi metti na jafe na kon nag yàlla na ko yàlla def ci ci ci ci ci réew ma yëpp defal ko nit ñi nga xam ne ñoo fa nekk ñu continuer rek ci seen jaamu yàlla jamu yalla pour pour pour tok rek ba tit di def yalla mo nako sante pour toujours la euh waye sa boko jàppee na loo xam rek day ñew bo te tiitee nek ci bo ci jógee nekkat ci leneen ñom nak lima ci mën a rek moy moy euh senu jaam senu ndax nit ku dem ba ci fo xam lu ne man nga ko fa def ci sa aduna ta tax dara taxul taxul nga fàtte sa diggante ak sa borom mais loolu moo tax toujours may wax ne ñoom ña fa nekk ñëpp jàpp naa ne la leen fa yóbbu mooy li li nga xam ne mooy mooy li jihaad di firi rek mooy dem def dara ci loo xam ne yàlla rek nga moo nekk ci biir kon yàlla na yàlla sàmm ñoom itamit